barakaatu ñu ngi nuyu ñëpp ku nekk sa tur ak sant di leen ziar di leen màggal di leen ndamoo di leen tiitaroo di leen bëggee bu euh, di ñëwaat di waxtaan ak yéen nag ginnaaw lépp di leen sant di leen gërëm di leen remercier ci taxawaay bi ngeen taxawu Sénégal ci taxawaay bi ngeen taxawu Afrique ci taxawaay bi ngeen taxawu le panafricanisme le souverainisme la libération du peuple africain di leen ci sant di leen ci gërëm di ñaanal ñi nga xam ni ñoo taxaw ci loolu ba suñu borom Euh, wuy ji suñu borom ñu ray leen ci muy ñuy ay martyr yàlla leen yàlla teeru teral leen ci àjjana yi gën a kawe yàlla na seen foofu gën na leen fuuf fii ci kaw suuf ñi nga xam ne ay martyr lañ ils se sont battus ba nga xam ni ñu mujj faat seen bakkan ñi nga xam ni ñoo ci gaañu it ñi ngi ñaan suñu borom defal leen ko ay yiw defal leen ko ay xéwal ñi nga xam ni ñoo ci nekk ci kaso yi suñu borom libéré leen euh, su ci ci combat bi nga xam ne ñi ngi ci ne ñi nga xam ne ñi ngi dund nag ñooy continuer combat bi di leen remercier di leen wax ni on lâche pas l'affaire on continue et on euh, n'accepte pas ñi ñu koy def donc ñi ngi leen di sant di leen gërëm ci teewaay bi ak taxawaay bi ngeen taxaw Afrique def ko rek te yàlla tax bëgg ko te yàlla tax nekk ci te yàlla tax ndax suñu borom moo ñu ko nattoo ñu juddoo Afrique màgge Afrique yaroo Afrique sekk kook ay nit yu bon sekk ko ay nooxóor ay dëmm ay infiro laqat jaaxum ay workat ay traite ay markatu ay bunisme ay jaaykatu ngor ñooñu lañ ko séqal donc loolu lépp teewul ñi ngi résister di continuer la résistance ndax am nañu ay gor ba léegi ak ay garme yu ñu ko séqal te ñooñu duñ ñu gën ci ndey duñ gën ci bàyyi continue les gars sur toutes ces formes di remercier ñi nga xamni aussi ñi ngi nek euh, ba bitim rew di mobiliser wu di dajaloo lu melni France tay jii deug nañ ni Macky Sall mi ngi fa ña ci mbedd mi di résister wa Belgique barki demb ba déggé ni Macky Sall ma nga fa génn di résister Amérique ngi résister le monde ñi ngi résister même le Sénégal ñi ngi résister parce que demb gis ngeen des centaines de milliers de personnes malgré que li nga xamni Macky Sall jëm nako def yoon bi nga xam ni moom la ñuy retrouver woo ci rassemblement bi daf ko fatt ak benn camion boo xam ni def na camion bi dafa paan ba pare camion bu paan boo xam ni policier ñoo koy garder démb la njëkk am dans l'histoire du Sénégal ab camion jàmbur bu paan ay policier taxaw ci camion bi wër ko ne dañuy garder camion bi ndax camion camion bi dafa fatt bunt bi fat yoon boobu noonu boo yëg ci pont foire bi camion lañ fa dóor mu fatt ko yoon ba ñu garder ko ne camion bi dafa panne j'ai jamais vu donc mais léegi ñun xam nañ leen ay say say lañ ay bandi salté lañ ay reykatu nit lañ ay criminel lañ donc lolu mo gëna a ndaw ci li ñuy gis ñi koy jéemal euh, sen askan. mais le combat continue et on lâche pas l'affaire les gars gis nga Sénégal gi souveraineté da koy am par la force sa liberté da koy am même bu laajee dund bu laajee dé bu lu mu laaj dinañ ko ko jox de toute façon donc di remercier aussi euh, sénégalais yi nga xamni ñi ngi Italie lu melni Bergamo jamono ji ñi ngi fa di def ay di def ay levée de fonds ay collecte il y a plus de 55 000 ou 60 euh, 000 euh, euros yi nga xamni nañ ko en moins de quelques heures Masha'Allah, ça montre encore détermination bi ak abnégation bi que on n'arrête pas la mer avec ses bras té lolu Macky Sall intimidation yi muy jéem a def ak napp ak jéem a def yow ñun wuñu ko loolu yëguluñ ko suñu yaram gis nga li ñuy animé li nekk ci ñun moo ëpp fuuf li muy jéem a arrêté on n'arrête pas la mer avec ses bras moom xam na loolu gis nga bu fekkoon nappaate mooy tax a gars yi arrêté kon bu mu rayee François Mancabou la ñuy bàyyi bu mu rayee Didier Badji la ñuy bàyyi bu mu rayee Fulbert Sambou la ñuy bàyyi bu mu rayee quatorze personnes yooyu noonu ca 2021 mille vingt la ñuy bàyyi kon te tey la wàllu gën a aay donc munul téye doomu aadama yi conviction bu doomu adamay am bëgg-bëgg bi doomu adamay am ci relever le défi si changer l'Afrique gis nga lolu noonu c'est comme géej guy baaw naan bu fëqul gal rek su li new donc ñun fofu la suñu dimension spirituelle suñu dimension bëgg suñu réew toll donc lolu mom na ñun lolu intéressé wuñu l'objectif final c'est mooy Sonko day dem ci élection yi par A ou par B Il y aura jamais jamais jamais d'élection wala une stabilité nationale bu fekkee ne Sonko du dem ci élection loolu nous. am il n'y aura ni élection ni stabilité du am ci réew mi dina tal leneen dina leneen de day ci rew mi day dafa def ci rew mom xam ni mom de ci mi mais mom xalatuko mais na continuer limi def ñun dinañ continuer parce que mon mi ngi ci lum nek ay plan am ay pexem gis ngeen Amadou Ba bobu di jambar faq teud bokku Pastef nu lépp nag ci loxoy procureur boobu la muy Abdou Karim Diop di doome xarab international Abdou Karim Diop moom bu doon tey Macky dafay day sax Abdou Karim Diop da koy lekk doome xaram jooju suufel na képp ku dëkk Saalum ñaawal na deru képp ku dëkk Saalum doomu xaram bu international mooy Abdou Karim Diop waaye nag bettuñu bettuñu de dafa juddu ci gileem nàmp ci mbaam mais Abdou Karim Diop on aura dinañ ko régler Abdou Karim Diop moom xam nañ dinañ ko réglé wallahi dinañ ko réglé ba mu ne cocc moom Abdou Karim bu deewul deux mille fii ak deux mille billaahi dinañ téegal ndayam ba mu plombé moom Abdou Karim Diop moom xam ne li ñuy wax bu fekkee dafay taxaw di menacé waatee ka jàppaatee ka nangam Abdou yow xam nga ni billaahi on va régler ton compte wallahi la azim on va régler continue comme ça di def yëfu salte ñi lay sant ay yëfu salte ngay ngay ngay ngay jàppaat moo wax Abdou Karim Diop ne day def ay enquête ci dossier médical bi génn bu Ousmane Sonko kan moo leen ko sant ñoom hmm? loolu la jàppee Amadou Ba ah? Amadou Ba boobu loolu la ko jàppee de nee na dossier médical bi ah, Amadou Ba am na ci eh, am na nan la ci Amadou Ba amee loxo Amadou Ba du docteur Amadou Ba du médecin Amadou Ba du avocat Amadou Ba demul ci gisul Ousmane Sonko Ousmane Sonko joxu ko mais nan la Amadou Ba qu'est-ce que Amadou Ba a affaire avec un dossier médical bu génn ci mbedd mi. Hmm? nan la Amadou ban ban ban ban lan la Amadou Ba am euh, affaire ak ak euh, un dossier médical ban rapport la Amadou Ba am ak dossier médical moom la ko téye noonu de téye gi ngeen di dégg nii moom la ko téye de démb la dem ci buntu rajo bi di ko xaar télé bi mu mu génn mu dem yóbbu ko qu'est-ce que Amadou Ba affaire moom xam nañ ñi am affaire dossier médical yooyu noonu ñun ñii ñoo koy jot ñun ñii ñoo koy jot ay Juan Branco ñeneen ak ñeneen ñun ñoo koy jot moom xam na moom xam na ñu mu war a jàpp. Amadou Ba n'a absolument rien à voir ak mais lépp nag Abdou Karim Diop la lépp Abdou Karim Diop la Abdou Karim Diop fu mu war a autosaisir du fa autosaisir fu mu warta autosaisir fu gàttam nekkul kenn sant ko ko lay jëm autosaisir Ousmane ba ñu jàpp foto ko ci biir auto auto gendarmerie bi autosaisirul de bu fekkee ni ay dossier personnel lay wax ak ay xawma lan information personnelle ak yu kenn xawma lu wax euh, cybercriminalité waaw mais yow ka ñu ci biir kañ jàpp dem photo ko ci biir oto bi nag comme un bandit ka dem photo ay ay ay euh, portable yi nga nangu nag ay këyitam ay passeport am yi nga ubbi hmm? la moo gën a personnel passeport jàmbur passeport amul lu ko gën a personnel boo yore sa passeport même un président de la république bu ñëwee fii passeport am moom mooy dem présenté ji ko du yónni du yónni chef chef am wala du yónni ku ko wër même un président de la république là passeport C'est très confidentiel Si y a un président y avez un aéroport vous y un chef de protocole ne vous le joxi boo ñu ko ko passeport passeport borom passeport mon meilleur passeport Bon, passeport mooy meilleur passeport Hein C'est extraordinaire ce qui se passe dans ce pays là Abdou Karim Diop N'est fi au moment où Abdou Karim Diop a libéré le plus grand dealer de drogue du Sénégal Ibrahima Cham Toubé est-ce que gis ngeen journal bu ci bind dans le calme lañ ko libéré bato drogue yi fi duggoon yëpp ngeen doon dégg oto yu bees yooyu ñuy duy drogue ba mu fee dell ki nga xam ne Ibrahima Toubé moo ko doon écoulé sur euh, avec la complicité de Ali Ngouille Ndiaye bato drogue yi ngeen fi yi ñu fi ci Iba Iba def overdose ba dee ci ba ta drogue boobu noonu ci la Iba Thiam def overdose moom ak doomu ñoom euh, euh, euh, kii amaari calmement lañ ko libéré les journalistes seen yoon nekku ci libéré wu xool benn danger public lañ libéré kenn bindu ci amul journaux bu ci bind calmement lañ ko extraire Abdou Karim Diop ko def pour lan menace buñ bugg a def Aly Ngouille Ndiaye parce que Aly Ngouille Ndiaye bateau drogue boobu lépp lañ dóor ci lañ libéré tubaab yi italien yeeg belgique ñi dem ñibbi ñi jël sénégalais yi ñoom dugal ci biir jàpp ñu woon jàpp ñu woon ki nga xam ne moom mooy Ibra euh, Ibrahima Thiam Toubé jàpp ñu ko woon de déedéet Aly Ngouille Ndiaye da doon seeyal Ibrahima Thiam Toubé ci biir ñeneen ñi la jàpp ji bàyyi Ibrahima Thiam Toubé cartelu brésilien yi cartelu euh, colombien yi ñoo commencé di woo Ibrahima Thiam di ko mën ne dañ koy parce que moom il indi fuite bi ba pata drogue yi daanu moment bobu nga xamni Ibrahima cham Toubé dem na ba nek en danger ragal ci la dem joxe bopam police mais bobu ali Ngouille Ndiaye da ko doon protéger en tant que ministre de l'intérieur da doon protéger Ibrahima Cham Toubé parce que c'est son élément mom la yónnee won ci bata drogue yi moom moo doon récupérer bata drogue yi moo doon euh, vendre bata drogue mom mo moo liaison entre brésiliens et sud américains yeeg yoy to ko lak mais comme, euh, avec la détermination des, des, cartels brésiliens et des cartels colombiens, qui ont commencé à menacer Ibrahim Tcham Toué, Ibrahim Tcham Toué, ti daw joxe même si mu joxee boppam Aly Ngouille Ndiaye dafa tiit dafa tiit parce que mi ngi fay woote accélérer. non non non pas le madame. Donc, dem donc gouvernement bi ñoom xam nañ affaire bandi la affaire de drogue la affaire phobie la ñu ñu war a jàpp dañ leen jàpp ñu téye Ibrahima Thiam ñoom ñoo ko téye ah jugement ba léegi amul Aly Ngouille Ndiaye bàyyi ne day demal boppam ñu libéré ci saase ñu ñu wax Abdou Karim Diop libéré Thiam euh, booy Ibrahima Thiam Toubé comme ça mu génn ci biti mu doon menace su Aly Ngouille Ndiaye bu Aly Ngouille Ndiaye yëngoo rek ñu ne Ibrahima Thiam kaay kaay wax ne bata drogue bi demee donc ñoom la libération de Ibrahima Thiam Toubé c'est pour menacer et intimider Aly Ngouille Ndiaye ana oto yooyu noonu ñu fi jàppoon yu am drogue yi oto yu bees tàq ci biir bato ba kan moo ci gis bi ñoom ñëpp a ko séddoo autorité yi lañ ko jox bato drogue bi lépp lañ jaay ba mu jeex tàq bato drogue yi ngeen doon dégg huit cent tonnes sept cent tonnes yi ngeen doon dégg di ba Aly Ngouille Ndiaye nekk ministre de lépp lañ écoulé ba mu se jeex tàq Aly jaay dem jënd fee ay pëndaxu buy ak pëndaxu meew ak teg naan day lakk drogue yi yëpp lañ écoulé plus de quatre bateaux jàpp nañ leen drogue yoo xam ni bu Aly Ngouille Ndiaye nekk fi drogue bi di circuler à gogo lépp lañ su lañ lañ jaay suñu doom yi di ci overdose mais ñu jël Ibrahima Thiam Toubé ñeneen ñi ñi ngi ci biir de tubaab bi lañ libéré ñu dem ñu jël bato yi delloo tubaab bi yóbbu seeni bateau ñu génn oto bi ak drogue yi drogue bi ñu yóbbu ko ne dañ koy deema taal mu jël jox ci biir ñu jël ay pëndaxu buy pëndaxi meew teg ak tuuti ca gàllaxtaanu drogue jaxase dugal na le ne dañ koy lakk ci woo télé yeeg yooyu commencé commencé wane jël oto ya séddoo jël drogue ba jaay ci biir revendre jàpp baadoole ya tëj Ibrahima Thiam Toubé lañ doon protéger mu ngi ci yoon ci biir kaso bi ñu ngi koy doog a libéré en catimini kenn yëgu ko ñu génne ko ndànk teg ko à côté ne ko bu yi waxee rek. ñu ñëw teg la nga wax bu Ali ubbee gémmiñam rek wala bu bés bu Ali nekkee danger ci Macky Sall ci kanamu Macky Sall contre Macky Sall rek ñu indi la yow Ibrahima Thiam Toubé nga yàbbeeku wax ni ni drogue bi demee rek na nga ko jaaye noo ko joxee Ali muy jaayee paquet paquet d'argent yi nga xam ne yaa ngi yaa ngi doon dajeeg chauffeur am di ko ko jox mu mu doon ay des paquet de paquet de liasses d'argent nga doon jox chauffeur Ali muy jaay bi muy yóbbu Sénégal cartel la mafia la doom ak xaraamata njaay ñoo leen jiite xanaa seen papa yi baaxuñu yéen xanaa seen yaay yi baaxuñu yéen xanaa yéen doo leen ay doom yu baax ay doom xaram xaraam rek leen di jiite ay kutumbaasaan rek leen di jiite yor nday seen réew mi di jaay drogue di rey seen doom yi di leen dóori overdose di jàpp seen doom yi jigéen yi di leen tëddee di jàpp seen doom yu góor yi di leen def ay cogg ay jàgg di leen yónni ñi leen di maral seeni bun yi yéen xanaa seen ndey liggéeyuñu yéen xanaa bëgg leen libéré xanaa seen baay liggéeyuñu ci kaw suuf fii yéen fu mérité yéen nekk ci ab dëkk ñiy jàpp leen toroxal leen sàcc seen alal jaay leen ay drogue sàcc drogue bi jaayat leen ko di leen toroxal boo leen amee ni ngeen taxawee amuñu fitu sax ñëw naan leen kaay leen ngeen ngeen pare ñu ni rey seeni doom rey seeni i baay rey seen yaay ñëw retourné naa pare da ngeen war a ñas seen ndey ku rey sama papa ñoo naan ma kaay pare na ma ma ñepp sa ndey da ngeen war a di tegal seen ndey ñoom ñii yàpp leen moo tax ñuy indi ay bëy ay mbaam xuux naan dañ leen di jox naan leen kaay leen pare nañu reykatu nit yooyu noonu jaaykatu yi ñoo rey seen njaboot yi ñoo tëj seen njaboot ci kaso yi ñoo taal ndey Sénégal ñoo yàq Sénégal ay doomu xaram lañu ay nit yu bon a ngi noonu mais yéen est-ce que bëgg waa am leen fulla waay seen bàyyi yi jotuñu nekk ñu bon seen bàyyi ay jàmbaar lañu ay jàmbaar fàq tëdd lañu siggil leen seen nday yi siggil leen seen bàyyi yi seen nday ak seen bàyyi yi dem wuti ay xaalis naan da nga leen koy jox il faut sauver vos familles ni leen di sauver moo ngeen taxaw jàmmaar la dëmm yi nooxóor yi infiro laqat jaaxum yi jaakatu yàmbaay yi jaakatu drogue yi rekkatu nit yi a faux faiseur de faux je n'ai jamais vu un cartel de bandits de grand chemin man bu ma taxawee di xool ci télé bi di gis benn eh, eh, Abdou Karim Diop di wax mais dama naan damay damay damay am lu metti quoi damay am envie woo sama papa ne papa baal ma àq am envie woo sama yaay ne ko yaay baal ma àq xaw ma lan laa def yàlla xaw ma lu def parce que jureewu leen ma ci nii man may toog di xulle ba Abdou Karim Diop di doon sama procureur man maa ñàpp ndayam man maay toog ba Abdou Karim di ma jiite quoi may tok ndey ba Macky Sall di ma jiite man may tok ba ñu tekkiwul sarab ndayam di ma jiite di mener en bateau ce pays là dans la di le mener dans la merde di le rey que tëj di foutre la merde di def le neex depuis quand la un juge juge lu mu war juger au lieu ñu accepter verdict bi ñu ko yónnee ay ay ay inspection ay inspection ñi tam naan dañuy xooli waji lan la fi liggéey jël lool war ko jox ko xamni ni Aïssata Tall Sall mu wara xol ba xam ki lan la def so rek nangam nangam suma mu na dak comme ça japp gor di len ray ci seeni kanam di japp gor di teural di rendi ba seen dret di fendi ko gor gor mënutul am senegal gor bu jog ñu ray sanday way ñu ñëw tegal sa gor bu jog ñu ray sanday boo jugee jàmm ñu rey sa ndey boo waxee dëgg ñu rey sa ndey booy dox ci dëgg ñu rey sa ndey booy wax booy xeex di wax jàpp góor rek di rey jàpp góor rek di tëj di toroxal ci dëkk koo xam ne nee ay jullit lañ ci dëkk koo xam ne nee am nañ diine ci dëkk xam ne nee nañ nit ay nit lañ ay ñu tekkiwul salab ndeyam di leen teg musiba. naaru laay jahannama ci kaw suuf waaye li yéeme na waay et puis ñoom ñooy wërbati ku ñëw jàkkaarloo yéen naan leen ay parrainé leen ñook fii la xar mi jaax te ñafoo seen ndey ñaf leen seen ndey dàqale leen ak ay xeer tëmbal seen ndey daf leen jaxaat ay nit yu bon lañ ay yëfër lañ duñu tekkiw ñu sarab ndaayam ci kaw réew mi waaye lii du du dëgg waay lii du yëfu nit et ñu tekkiwul dara qu'est-ce que Amadou Ba a fait parce que moom mooy wax jamono ji Pastef Macky Sall réduire leen képp ku nekk Pastef au néant opération rëbb demu Pastef di jàpp di rey di tëj di dàqe ñii di daw di génn réew mi ñu leen di wër ci aéroport yi ñii ma dem ba jaaree ne ma dem ba Touré jaaree ne xaw ma lan Touré kële ne meeru géejawaay xaw ma lan daw jaaree ne le que xam ngeen ñaata ñoo génn réew mi est-ce que xam ngeen leen chasse à l'homme chasse aux patriotes jàpp Ousmane Sonko tëj ci kaso yi jàpp ñii tëj ci kaso yi ñii ñu ray leen ñii ñu rëbb leen ñii ñu daw leen ñu daw génn dëkk bi les ambassadeurs et ambassadrices yi ngeen fi déggoon ñi nga xam ne dañoo jàng ba ne ar jaar ENA jàng génn dans l'administration am seeni diplôme liggéey avant Macky Sall ma xam ci ñu bari ñoo xam ne jamonoy Abdoulaye Wade laa leen di fekk ci ambassade yi liggéey ba am seen diplôme ñëpp la makki sàll rëbb Aïssata Tall Sall ministre des affaires étrangères bu mu ko nekkee def kii yu képp koy patriote te nga nekk ambassadeur wala ambassadrice ba nga nekk ci ambassade yi mu mu rappelé leen à Dakar ñëpp la doon bëgg a tëj rappelé leen à Dakar gars yi def seen réunion ñu xamal leen ni boo leen di ñëw fii di dee. ñom ñepp a daw ñëpp ñii ñi amerique ñi kenn wul yeen gisoon ngeen communiqué boobu Aïssata Tall sal bind bind seen tour yi ambassadeur bi nekkoon Maroc ma nga ca ka ne yeneen dëkk yu bari ñi ngi ca mu rappeler leen à Dakar pour daf leen doon rappeler à Dakar pour les éliminer pour nokk leen ci kaso yi parce que lan juste amour buñ porter ci ci Ousmane Sonko wala son projet ñepp daw kenn ñibbisiwul ñëpp a seey bu mu leen rappelé ñu ñëw Dakar ñëpp seey ay gor yu jàng ba ne ar bu ñuy jàng kenn xamul Aïssata Tall Sall mi ngi mi ngi ci burum bu ñuy jàng Macky Sall la ngi taxawàllu ak koyam bu ndaw di wëndaalu di ko xandal fu ne ñu ngi jàng di rey seen bopp jaar ENA jaar comme nu ko ko defee ba ne ar génn nekk dans l' administration makki Sall ñëw rek yàqal leen seen àdduna ñëw rek tas njaboot yi ñëw rek vide leen bugg leen toroxal. parce que lan parce que day amour bu ñu am ci seen nation ñun dañuy toog nii rek Macky Sall jàpp gor yi di rey di rey di rek képp ku baax ku yàlla bëgg Macky Sall dina rey sa mu tante rey sa ndey képp ku baax képp ku yàlla gërëm Macky Sall da lay wër képp doomu xaraam rek lay bàyyi ci réew mi ñuy taxawaale ko wax lu leen neex gor yépp la Macky Sall rëbb opération rëbb gor opération rëbb garmi opération rëbb patriote Ousmane Sonko ngi ci lal hôpital ba entre la vie et la mort fitna njabotam japp njabotu jamburi di tal ay kër di tiire ay auto di lakk ay auto jamburi di tej doomu adamay di ray doomu adamay même pour juger sax il faut mu am lu mu def saaba si fay toxal ko ci karamo ay nawlem pour ñeneen ñu mëna képp ko jogon un recalcitrant mu noppi ma dem ma man may buur man maay wax Sénégal si naan di wax contraire dem leen nga rëkkal ma dégg Sabassy te bu amul ci yàlla jàppul dans quelques mois nga dégg ni si dàq nañ ko parce que jëm nañ ko toroxal façon toroxal bu ne yóbbu nañ ko ci àll beeg fépp si di résister fa lañ ko bugg a fekk léegi rendi ko benn yoon mais di jamais vu sax léegi ñoom Abdou Karim Diop ñooy nekk di def yëfu salte di avancer képp gor ku gëm yàlla bëgg yàlla ragal yàlla mu ne da lay rey kii moo raw firaw na kii moo raw firaw na ci réew mi ni firaw na doon toroxalee eh, eh, eh, ay askanam noonu la Macky Sall di toroxalee ay askan bépp gor mel ni dañ ko ne gor bu juddoo ci Sénégal rek reyal parce que da lay jàpp ku mel ni Ousmane Sonko di gor gis nga lu mu koy di ko gor yi jaase lu ne mu teg ko ko juge bu génn ne gor mu ne rayal leen comme si dañ ko ne yow gor yi bu ñu gar yelee daaneen mu ngi rey gor yëpp ba ci Amadou Ba bi mu jàpp lan la ko def lu Amadou Ba def lu Amadou Ba def ndaw na mën a jàppe ab leader jàpp dëkk ba yëpp ne kenn du wax Amadou Ba moo fi desoon bu ñëpp noppee ba ma génnee di wax naan gaa yi parce que dafa war am ñu ay représentants yu ko war a waxal Amadou Ba porter le flambeau mais nekk nit bu yaru nit boo xam nit bu teey nit boo xam ne xamul fitna nit boo xam ne musul woote génn leen ñun sax dañoo dem ba ki yambar la lu tax muy bañ a wax génn leen mais da xam ni situation bu mu taxawee la mais Macky Sall kenn mënu ko daw Macky Sall kenn mënu ko daw Amadou Ba daw na ko façon daw bu ne musul woote xeex musul woote génn ci mbedd xaar leen rek leen do xaar leen justice bi déglu leen xaar leen justice bi ñun bu dee dëgg rek ñoo ko war a gañee normalement ño nek ci yoon ño nek ci deug xaar leen di dalal askan wi nga japp ab ko xamni matul sexul waxul dara lu ñaaw waxul dara lu bon woowul sénégalais ci dara lu ñaaw nga japp ko def lu melni pour rek tej parce que xam nga ni ben gemmiñ mooy wax ño ay doomi xaram lañu ni lañu togué di wax bu plan euh, Cheikh barra Ndiaye lim la laj ko Cheikh barra Ndiaye buñ koy plan avant buñ koy planal laa la wax ñoom ba laa ñu la planal nan la ñuy jëndee waaji la ñu xool lu ñu njëkk euh, kii waaji la lu mu tuddati bu ñu ñëw di plan euh, euh, kii Assane Diouf ci Assane Diouf lañ commencé seen réunion Assane Diouf nañ ko xool nu ñu ko jëndee buñ ko mënul jënd ñu tëj ko ci kaso yi barki alxuraan jamono jooju lañ jéem a jënd Assane Diouf mu bañ ñu tëj ko ci kaso yi mooy duñ ko tëjee téye ko retour de parquet retour de ba mu ba mu toqi toqi toqi ba gisutoo sax Assane Diouf te jamono jooju réunion bu ñu doon def mooy nan la ñuy def ba jënd Assane Diouf man xamoon naa nit ñi duñ ko réussir foo leen fekk ñu ngi réunion nag Assane Diouf ni ñu ko war a jëndee nañ ko jox lii buñ ko joxee li mu noppi na ña ngay xool nu ñu nu ñu noppiloo Assane Diouf man xamoon naa ne duñ ko réussir réussir duñ ko ñu indil ko ay ñol-ñol jàpp ko dugal ci kaso bi toroxal ko torturer ko torturer ko torturer ko ba mu tas ñu génne ko. ñu teg ci ñu ñu ñëw ne Cheikh Bara Ndiaye nan la ñu xoolee ni ñuy jëndee jamono jooju lañ taaroote Cheikh Bara nañ xool ni ñu jëndee Cheikh Bara Ndiaye kurti kurti dugg dugg xool ni ñuy amee moom ay lien ay relation nang affaire bi tëlën ñu dem taal otoom teguñu ci dë semaine lañ dem këram tiimale ko ay fetal mais ñi ay vrai doome xaram lañ ñi ñi ñëpp seen nday lañ ñoom Macky Sall ki nguuram ak ñoo kàcc seen nday sax non ñi ku ñi mérité lañ géewetin seen nday daggate leen pakete morceau par morceau ni Samuel Doe ñu ñëpp seen nday lañ waaye li réew leen kaa ñu jënd moo boo lànkee ñu ne xaar xaara ko xaara ñu toroxal ko koo gis réunion nañ la xool ñu la jëndee boo bañee boo dee gor ñu ne xaara ñu rey ko def nañ ko saaba si fay jéem ko jënd mu lank ñu def lu ne mu lànk ñu fay làmp yi mu lank ñu ne ko kaay kaay ñu tëju xool ñu mu bañ ci biir juge bi juge jugement bi kaay ñu tëju waxtaan mu lànk ñu fay làmp mu lànk ñu bu pare ñu dem ne léegi dañ koy dem rey ji ñun ni lañu toogee ñu jàpp gor yi di rey rek di jàpp gor yi jàpp Ousmane Sonko tëral ci biir mu nekk entre la vie et la mort ñu jàpp gor yi di rey rek di tëral di leen di rey rek di tëral di leen di rey rek na ñoom balaa 2024 ñu jeexal gor yi balaa 2024 ñu jeexal nitu yàlla yi balaa 2024 ñu jeexal képp kuy patriote wala combattant saa yi ñuy yeewoo chaque jour son lot de victimes chaque jour son lot de victimes assassin bu mel noonu war nañ bàyyi muy taxawaal nu mu ko neexee di wër nu ko neexee waaye réew mi katt na ndeyam waaye Sénégal réew mi toj na cott ndeyam waaye réew mi dëgg na ndeyam fële waaye li du dëkk bu waaye dëkk bi kas génn gor yi kàcc seen nday bomb sax ak ko gën génn gor yëpp kàcc seen nday ay 45000 bomb ñu ñëpp seen nday def ma ko doom nga jeexal dëkk bi rëccal gor yëpp waaye li ñu ñàpp lëfal ndayam réew waay ay doomi xaram yi toog jàpp doomu aadama yi di rende ka raye ka toroxala ka di fitnaa la ka tëj di ñu tekkiwul ci réew mi Abdou Karim Diop war naa mën a taxaw na nday atte kenn quarante cinq mariage cinquante cinq doom trente yëpp ay doomu biiral lañ kat sa nday ay doomam a ngi fii ñu biiral seen yaay ñu ngi fii c'est des ñu ngi fii ma Montréal gi di ma dégg ak ñoo xam ne dafa takk seen yaay ñu ngi fii loolu rek la fi nekkee ku katt la fal ndayam la booy Abdou Karim Diop xaram doomu xaram international la les raisons de l'arrestation lenn kese la amul benn raison Abdou Karim Diop moo ne jàpp leen ki fi nekk di waxal Pastef ñom loolu kessa la bëggu ñu dégg Pastef bëggu ñu gis Pastef waxna naa leen ko nee naa leen seen xex moy Macky Sall ay waxu Pastef da koy sonal ay gis nitu Pastef da koy sonal ay yoré sol yoré Pastef da koy sonal gis ay photo Ousmane Sonko da koy sonal daf leen int daf ne leen éliminer leen Pastef ne dafa dissoudre parti bi ne ex Pastef bu leen joxul ay euh, parrainage c'est parce que bëggu leen gis ci mbedd yi yéen xanaa doo leen déglu joxu leen parrainage parce que bëggu leen gis ci mbedd yi bu leen joxoon parrainage yéen ngi ci kër yi di dugg nit di leen topp nit yi di wane seen amour ci Sonko bés bu ngeen joxee parrainage dina gis ay junni junni doomu aadama yu leen di topp Sonko Sonko Sonko Sonko kër yi di riir mbedd mi di riir buggul loolu mu lànk ne di leen jox ay parrainage parce que buggu leen gis ci mbedd yi engouement boobu ak amour boobu noonu gars yi porte ci Ousmane Sonko di feeñ ci ay kanamam neexu ko lim ci am ko néew nii rek ci stade yeeg yooyu buggul sax match sax am buggul Macky Sall nga buggul sax match am Sénégal match sax buggul mu am Sénégal ndax li ngeen koy def Sonko namm na ala bi métti ko lool nangul manifestation nangul dara ndax buggul Sonko namm na al buggul sax ku wax Sonko Sonko rek la bañ Macky Sall ko kàtt ndayam la xol bu cott ndayam la Sonko rek la bañ ak a bañ Sonko bu ko mënoon warax da kay warax buñ ko nee Sonko daa feebar day jubilé Sonko ngi waaj a dee mu kontaan di jubilé yàlla na dee di ñaan mais kii ngeen fi dégg mu tudd Macky ñaata nit ngeen la amul trondoo kenn du ko tuddee doom Sénégal dix-sept millions de Sénégalais kan moo fi am frère bu tudd nijaay bu tudd Macky kan la Macky bu katt ndayam la Macky Sall la doomi xaram la waaye réew mi nañ ko lijjanti waaye bu wala ñu pare ci on en a lii réew la Macky Sall doomu xaraam la rek adduna bi ñaar Sénégal ñaata fi tudd Ousmane ah ñaata fi tudd Mouhamed ñaata fi tudd Ajaratu ñaata fi tudd Fatou ñaata fi tudd Mimi ñaata fi tudd Khady ñaata fi tudd Mamadou ak Abdallah Macky da ngeen teggi cinq si Sénégal kan moo fi am mbokk bu tudd Macky tur bu kàtt ndayam la doomu xaraam bu tojjootu ndayam la Macky Sall ñu koy bàyyi muy def lu ko neex waaye nii lañ nar a bàyyee daal muy tëral kor di rendi rek di tëra ko ji rendi di teg di tëra gore ji rendi di teg ba kañ ba kañ ba kañ waaye ba kañ waay maintenant Amadou Ba kon Amadou Ba boobu moo doon bu Pastef moom jàpp na Amadou Ba loolu mooy mooy wax ji jeex na quoi ñu mënul jàpp daal mooy ñun ñii jàpp na Amadou Ba Amadou Ba kese la fi Pastef amoon muy wax di informer juste et vrai au moment opportun di wër ci médias yi di wax nekk nit bu ñëpp di déglu ku mu am verbe di gor di gaar mi nag te wax naa ko fu kenn new nee naa leen Amadou Ba bu dee gor rek kenn gënu ko doon góor mais nag il faut ñu comprendre ko Sénégal la ne discours bi nga yor yow mi nekk kaaw moom mënu ko yor mënoo ko yorloo discours bi nga yor ndax li la protéger protéger wu ko xam ni discours fi nga toogee toogeewu fa war na nga jaay ko yow boo fa toogoon doo waxee nii sama maam daf ma doon wax naan picc li mu mën a woy ca kaw garab mënu koo way ca loxoy xale ma ne ko maam luy loolu mu ne ma loo mën a wax ci libre liberté ba nga am di naaw di jooy di woy nu mu la neexee boo téye woy ak yuuxu bokkuñu picc ma libre nekk ca garab ga di naaw day woy bu ko xale ba téye ca loxo day day yuuxu du woyati day yuuxu eh, eh, eh, day yuuxu ñaar yooyu bokkuñu kon ñun ñi nekk fii di wax nu mu neexee am fi droit am fi liberté Amadou Ba amul loolu mënuñoo jël suñu discours jox ko Amadou Ba par force ne ko nii nga war a waxee déedéet il est très stratège Macky Sall mooy dëmb bu kenn mënul rëcc mooy dëmb bu instauré dictature biir Sénégal kenn mënu ko raw kenn mënul daw ba raw dëmb boo xam ne dal bu la bëggee lekk dana dina la lekk dina la lekk met la ndayam waaye waaye dëmb bi ni ngeen koy bàyyi muy lekk rek chaque jour mu lekk kenn mais met la ndayam xoj la ndayam mu yàbbi nit yi xoj la ndayam mu jëfru sinon nañu lekk ñun ñëpp ah balaa deux mille vingt quatre ñëpp lay lekk bu muy lekkee Fadilou Keita kenn xamul kañ la ko lekk na Fulbert Sambou lekk na Didier Badji lekk na François Mancabou lekk ñoom Abdou Karim Gueye ba seen njaboot yi sax fàtte nañ leen léegi lekk na Diomaye Faye lekk jàpp ni di lekk rek kàtt la ndaay mu bàyyi lekk bi na bàyyi lekk nit yi ñaf la ndaay mu jëful te bàyyi lekk nit yi waaye doy na waay salte naa salte salte salte lekk na imam Alioune Badara Ndaw comme bëgg a lekk jiñ la ji euh, bukki bi bëggee lekk doomam da jiñ bëy bukki bi bëggee lekk ay doomam da jiñ bëy ñoom ñëpp la lekk force tranquille ak force spéciale force commando warax lekk fàtte waaye dëmm bi bu waaye dëmm bi nooxoor la waaye kii moo téegal ndayam waaye Macky Sall ku ubbi tata ndayam la ku kàtt lëfal ndayam la waaye sa caapa nday saa yow waaye yow waaye yow la ndayam moo fa taxaw mu ngi taw ñu ngi taxaw di yuuxu ndayam na génn tàppet bu ubbi tata ndayam la na génn dëmm bu tàppet ponkal lekk na nday nit ba mel ni innama patriote France yëpp ngi taxaw foofu noonu buntu ambassade ba mu ngi taw làqu ci biir bu génne ñu Dakar ndayam nga xam ni moom moomuñu ñun waaye kii doomu xaram la waaye ne du gis gor du gis garmi ni la def Sidi Lamine Niass du gis gor du gis garmi moom moom deretam bi gor lay bañ bu gisee gor da koy lekk bu gisee garmi lekk lekk rek lekk na fi seex Béthio Thioune moo ko lekk lekk fi Sidi Lamine Niass lekkaate lekkkatu nit la nee naa la tur boobu bëriwul ci réew mi ku ko tuddee sa doom day lekk lekkkatu nit lay moo tax kenn du tuddee doomam Macky sa doom mu lekk la ku ko tuddee lekk lekkkatu nit la lekkkatu nit rek moo ko mën a tuddee dooma xaram la nooxor bu infiro la xat jaaxum la ku toj cottu ndeyam la nañ ko nañ ko nañ ñafal balaa moo dem nañ tegal ndayam balaa moo dem nañ ñokku ndayam bu baax balaa moo dem kii nu mu def askan wi amul benn def sa askan lii réew la ngeen foog ni daf na ko Xalifa lekk ndayam la def warax yaayam feebar ba son di joy Macky Sall mëno fexé fexé ba duma lek Khalifa Sall warax lako def Abdoulaye Wade ak lu mu defal Macky Sall Macky Sall dem la lek ndayam lek dom ji la def lek dom ji keur ñom Karim Wade gi la maggé ba mu maggé ba bëñ sax yi bëñ dom Wade la njëkk lek. Karim la warax lek suñu jonne Yalla tay dem la kenn duko denc ci kër dem la lek kat nit la. sarab nday dooma xaram ji way gars le combat continue résistance persévérance abnégation courage combativité encore une fois nañ bàyyi lamentation bi yokk fulla yokk fayda bëgg li ñuy def nañu ko jaral une patrie se compose de morts qui la fondent et de vivants qui la continuent. Nous continuer Nous continuons ah. continuer nii ci loxoy doomu xaram ji nous continuer ni. li affaire bi dafa ëpp. waaye ki moo raw Iblis waay. gars yi bu ñu bàyyi de le combat continue ay doome xaram rek la fi teg doome xaramata njaay kese kat doome xaram yi ñoo nekk di continuer ay lu salte rek lañuy def changement de post moo fi am Aïssata Tall Sall moo nekkoon affaire étrangère def fa lu salte day fa nday étrangère bi yëpp fu mu dem xeeñu ak ndayam yee xeeñ caga bu tégal ndayam a ngi noonu international ku mer bu ñaf ndayam la Aïssata Tall Sall kan moo newoon ci justice bi Ismaïla Madior Fall ku katt lëfal ndayam ku toccott ndayam sax doomu biiral bu tégal ndayam ñoom la la kii latéral la woon kii ailier la Aïssata Tall Sall moo newoon ailier moo newoon ci kaw Ismaïla Madior Fall moo newoon latéral mu jël Aïssata Tall Sall wàcce latéral jël Ismaïla Madior yóbbu ailier loolu de la fi def Sidiki Kaba bu katt ndayam góor jigéen faramason bu tot cott ndayam a ngi noonu paa bu ubbi tax ndayam sax paa bu salte paa bu katt ndayam salte moom ci day yi lay liggéey ci day yi puuskatu puub la tey mu doon franc-maçon suba mu doon ne day défendre góor jigéen ginnaaw suba mu dem ne juif la paa bu ubbi tatta ndayam bu xar xasawoo noonu ku katt ndayam sax Sidiki Kaba ak ko tot cottu ndayam bu ko noonu mu yóbbu moo gën a salte kii nga góor jigéen bi ba mu fa remplacé Antoine jigéen bu ñaf ndayam mu changé postam mu yéegal ko gars yi ñu ngi fi ba léegi bu leen fàtte ni bu ñuy taxaw di fenn rey nit yi ba pare génn naan ay rey ñu leen fii la xar jaar Antoine ñàkk jom fa toogoon Sidiki Kaba fa toogoon Ismaïla Madior Fall a fa toogoon euh, Aïssata Tall Sall la ñu yóbbu ko ci kaw mu nekk di duul di xool nañ la ñuy valider ñi rey ne reyu ñu leen ak Abdou Karim bi doon ubbil oto Mor Mor Ngom Abdou Karim bii ni wax nii moo doon ubbil oto Mor Ngom barke alxuraan moo ko doon téel bagaasam billaahi wallaahi wa taalaahi wallaahi azim kii ku katt lëfal nday mi toog fi Abdou Karim bii toog fi nii ministre moo doon ubbil Mor Ngom otoom di ko téel saagam di ubbi oto mais réew mi di ngeen fi kat seen nday jóge gore ñëw toog di ngeen fi toj seen cottu nday jóge gore ñëw toog munu leen fexe ba duñ toj seen cottu nday ngeen jóge fi gore yi dinañ fi toog mënu leen muusa ko waane ba jaam yi ngeen kat seen nday doon raykatu nit yi di fi toogaat dinañ toj seen cottu nday dinañ toj seen cottu nday ak képp koo leen àndal di ngeen ci réew mii gor yi fi toog gor yi fi toog 2024 jàpp leen gor yi dinañ fi toog mbaa dinañ toj seen cottu nday waaye seen dambalu nday waay ngeen foog dinañ leen fi seetaan ñoom Abdou Karim Fofana yu kat seen cottu nday doon toog ci bopp xeer ba di àbb bu dikkee bi cinquante franc café cinquante franc meew dinañ toj seen cott nday laa wax di ngeen fi jógee dinañ dëgg seen nday di ngeen fi jóge wala ñu katt la fa nday Sénégal toj ndayam taal ndayam mu jeex yéen seen caapa nday waay focus gars concentration ah. ñii moom wax naa la boo boo amee seen jot dinaa toj seen cott nday waxoon naa leen Abdoulaye la Ecotra xaaral ma wan leen photo man yéen dama yaakaar ne da ngeen a dof la kii leen ko. bugguma sax tardé ci moom yow dinaa kat sa nday Ablaye Sylla Ecotra yow xam xam naa la xaaral ma ñëw toj sa cottu nday yow mais amuguma sa jot pour l'instant comme mais yéen est kii mooy Ablaye Sylla Ecotra xool leen booy bi kii de mooy ñëw di leen fooy kii. lëfal ndayam tekkiwu ko booy bi cottu lëfal ndayam tekkiwu ko booy bi mooy Ablaye Sylla Ecotra dóor kat la kii Marème Faye Sall la doon àndal di ko maral bunum Marème fay Sall di ko jox muy blanchir argent am ñu mu dóor ñoom Marème Faye Sall ell Macky Sall ne tey laay toj sa cottu ndey mu daw dem États-Unis làqatu foofu noonu lu leer la wax ak Marème Faye Sall dédouané génn ay milliards joxe ba mu fiy jóge def def na entreprise am yëpp a daanu moomul Ecotra directeur la foon directeur liggéey liggéey bu salte ci Karim Wade Ablaye Sylla booy bii <laughs> man réew mi dama dégg man nañu xanaa fàttaliwu ñu ba ma wax affaire Adji Sarr wax naa ci Ablaye Sylla boobu dafa dawoon dem Amérique amul liggéey amul lëfal ndeyam dara tekkiwu ko dara lëfal ndeyam tekkiwu ko Ablaye Sylla ay contrat manigance sur manigance Ablaye Sylla a ko trahi baayam amul alal yaayam amul alal tekkiwul sarab ndayam sàcc rek lépp lu mu yor Marème ak ko ñox dinaa ñëw ci moom ngeen xam ko baayam tekkiwul sarab ndayam ci réew mi yaayam tekkiwul sarab ndayam ci réew mi lu ñu Marème Faye sàcc jox ko ko mu blanchir mu teg leen dil yu toj cottu ndeyam ci la dawee ñëwaat ñu wax lu leer nañ ba gars yi ne ko ñëwul mbalit moomu moo nekk di wër fii naan da leen di fa dinaa toj cottu ndeyam Abdoulaye Sylla maa ngi ñëw ci yow yow yow awma gu ma sa jot man damaa yaakaar ne réew mi ñii xanaa ñi ña nga nekkal tey lañ judd man nan la Abdoulaye Sylla mën na ñëwee ci réew mi <laughs> mooy booy nag xamuñ xamuñu xam naa yaakaar dama yaakaar ne xamuñu lii lay <laughs> Ablaye Sylla lëfal ndeyam tekkiwu ko du papa du yaay affaire u bâtiment ay defar taleeg yooyu la ñu defoon ko directeur entreprise sax moomu ko ñu naan ko Ablaye Sylla Ecotra muy wëndaaloo ko taxawal Marème fay Sall di ñu dóor ay xaalis bu bari di ko jox muy blanchir mu dóor leen linjaa ba fii boo leen demee da ngeen xool sax xaaral ma woon leen Ablaye Sylla jël doomam tuddee ko Amadou Sall ñu naan ñu ñu ñu tuddee ko la le cadeau de Ablaye Sylla au couple présidentiel lépp pour dóor Macky Sall pour mu baal ko boole mi ngi nii le fam dam leen lire le fameux cadeau de Ablaye Sylla mi ngi nii. mu ngeen ko liir mais Ablaye Sylla war leen jaax mi ngi nii ba mu jëlee doom ja tuddee ko Amadou Sall woo ñoom Marème Faye pour pour pour jéggalu ñu ne ko boo fi duggee dinañ kat sa ndey muy. daw di daw di daw rek di am taxawaan Ablaye Sylla ñëw na leen bàyyi leen maag ma ma defar xabru sëñ Fallou bi ñëw indi ay tureelam ay ay gaayam ñu ko war a defar fukki dërëm yoru ko noonu la demee am ñu naan ay moo ko defar defaru ko de indi woon ay matériel am ne da koy defar bu muy daw di dem Amérique matériel la fa ko bàyyi ñoom dañoo ñëw maçon dañoo ñëw teg seen i mat ba léegi ñëwuñu matériel la lañ lañ leen génne defaru ko de defaru ko de nay leer daf ne dafa ñëwoon rango ne da koy defar fekk fukki dërëm yoru ko boobu mi ngi am problème ak ñoom ci la dawee ba léegi defaru fa matériel la lañ mujjee génne sànni dealer la dealer sàcc sàcc blanchiment kese blanchiment sur blanchiment sàcc fen waxoon na dafay ubbi télé moom ak ñoom tay tayru saar ay nit yu tekkiwul saaraab ndayam ñoo nekk ci <laughs> Tahirou Sarr mii nga moom mu jàngul mënul bind turam Tahirou Sarr Tahirou Seydou Sarr jàngul mënul bind turam barke alxuraan jaay jaay jaaykatu soutien gorge jaaykatu soutien gorge la woon jaaykatu string jaaykatu yére jàngut mënul bind turam jaay visa jaay visa dem ba Amérique jël ay nit yóbbu leen yonu passeport yëpp passeport yëpp ñëw ba ci américain bi jox ko sotti ko sotti ko passeport xale ñu mu indi jaay visa. police américain bi ne ko mais yow ñii yàlla yow sa passeport laa la laaj mënul sax liir turam muy wër passeport am ci biir passeport yi ñu paqueté ko ba mu takk ba mu dëgër moom ñu mu àndaloon yóbbu leen delloo seen ndey interdire ko États-Unis moom Tahirou Seydou Sarr. mais ñu tekkul saarat ndayam ay jaay ñoo ñoo ñëw yor yor réew mi quoi ñoo ñëw di menacer di naan ay dañuy fi kii dafa yor lu mu financé laaj lañ ko ba xam alal ci bàyyi la ko jëlee wala ci yaay waa pa pa pa pa mais réew mi moo katt ndeyam waaye Sénégal mooy mooy réew mu tojjottu ndeyam waaye réew moo xam ne da ngay yeewu sa xol bi di katt ndeyam sa xol bi di xar di tojjottu ndeyam te defoo leen dara waaye réew mi moo katt ndeyam waaye man ma lan moo tax mu existé xaram naan dañ leen di jiite ñu tekkul sarab ndayam ci kaw ci mi ñoo ñëw naan dañ leen di ñu naan la euh, doomi xaram ji ko sax coon ñaa kat seen nday ku xiif baaxut xiif ak a ku xiif du gis coon ñaa mën a Euh, entreprise ban entreprise ngeen fi bu co ngeen di liggéeyee con ñaa nekk fa et eh, damay kat seen ndeyaan ah. yéen ñi di wax ay entreprise con ñaa damay toj seen cottu ndeyaan ah. may xaar ba benn kenn ku ñëw naan ma con ñaa ubbi na at ba toj sa cottu ndey kat wax ma képp ku fi na at ma kat sa baay mooy liggéeyee ci benn entreprise bu con ñaa eh, eh, defar kan la sa baay liggéey con ñaa entreprise bu sa wala sa yaay damay kat seen ndeyaan ah. yéen nag toj seen quatre cent cott jot na nag quatre cent jot na ubbi entreprise ban entreprise di liggéey bu con naa defar wala sa yaay day damay ah. quatre cent nday omu xaraam yi sa baay day ci entreprise bu sa bu ubbi wala sa yaay doo ma xat ñu nekk di xeex xeex ak oligarchie di xeex ak lobby di xeex ak maçon yi di xeex ak góor yi ngeen di kat ma entreprise sama papa ëpp con ñaa ay tool la yor ak ay surga sama bàyyi ko ëpp tool tamba yëpp sama bàyyi koy bay camion surga lay wàcce ñu duggee ay bóotu di bay di woy kat ko patriote sama papa maa ko gën patriote parce que lu nekk ci poosam rek la nga dugal lu mu yor la jabaram yi nu mu leen dundalee kese sama papa jabaram yi nu leen di jox lu ñu lekk doom yi nu mu leen jox lu ñu lekk du patriote ubbiwuma benn entreprise maa gën a doon patriote junni yoon lu ma ñeme ñeme wu ko ngeen naan ma carte ndeyam entreprise ban entreprise la fi toon ñaa créé waaye nday waay yi ñuy wax waxu entreprise defar seen bun dañu gën loo ni américain ñun dañoo bëgg a libre autonomie la ñuy wër wëruñu ay lobby wëruñu ay làkki anglais wëruñu ay ànd ay ñoo xam ne góor jigéen yi lañuy favorise favoriser wëruñu loolu sama papa ëpp coon ñaa foofu ay tool moo ëpp coon ñaa foofu ay surga Sénégal moom sax da koy dama ko jaaxal ngeen may wax ay waxu kon ku am tool daal lu yor ay surga euh, am nga entreprise damay kat sa ndeyam ah. maa ngi xaar ba kat la fa taxaw naan ma ay ton ne entreprise ay liggéey Sénégal li kat ndeyam liggéeyu ko complexe bu kat ndeyam la tekkiwul saram ndeyam mënu sax gérer biir koñam koñam sax ton ñaa mënu ko gérer yow xam nga lan mooy gérer réew kenn ko gérer réew day am ay anti day am ay idéologie day gëm déjà day nekk panafricaniste Thione Niang n'est pas panafricaniste Thione Niang waxul dara ci Afrique foo ko fekk mu ngi katt la fal ndayem sol koskaraat tegul sarat ndayem na yee yoo yoo what's up a kattal ndayem wolof language man wolof language bu ñu ñëwee dañuy changé nday langue bi langue nationale bi wolof langue officielle wolof kat sa nday sa anglais taxawel na le dooma xaram complexe bu kat sa bi nga am sa ñaari tool chaque jour bu Macky Sall di dem yóbbaale la soixante millions yi di dal six cent millions yi di dal coon ñaar fu mu demee Amérique Macky Sall la àndal katt na fal ndayam bu Macky di dem Washington yóbbu na coon ñaar six cent millions la ko fa dóor bu Macky Sall di dem New York yóbbu na coon ñaar ay millions la ko fa bàyyi muy wëri lobby gëmul nday langam du panafricaniste dem ci ñu wax naan Obama la andal moy ñi favoriser goor jigéen yi le lëfal nday coon way sa nday complexe man entreprise ngeen fi gis bu bu coon ñaa mom ay tol ak ay surga ngeen naan liggéey na lu mu liggéey di encaisse sa nday xaliss bu lu jeex di lobby bu tegal ndam boo leen amee ñàkk seen ful la waaye coon ñaa di leen fooye man moom duma ma fii di dund coon ñaa di ma fooye dinaa toj cott ndayam tekkiwul sarab ndayam coon ñaa lëfal ndayam tekkiwu ko ñooñu nit di nekk di xeex seen souverain souveraineté national di xeex seen liberté di di réclamer ay dirigeants comme Ousmane Sonko ngeen foog ni Ousmane Sonko bu bu meloon ni coon ñaa dinañ ko topp bu Ousmane Sonko ñëwoon fii dañuy jaay ma jaay ay anglais ki français ñuk lañ koy def ni nakari ko fekk mu dem français la France euh, c'est un pays jovial non mais la France mais le Sénégal dañ koy saaga ñu ànd Sénégal Ousmane Sonko dafa ñëw ne eh la France sommes le système français France dégage gars idéologie africaine panafricaine xoolaat la yi tubaab bi dootu ñu dribbler di ñu time yor un discours euh, panafricaniste un discours libérateur un discours boo xam ni day changer lépp loolu moo tax ñu topp ko bu fi indoon ay complexe ngeew laa wax ñu tegee ko nële bu fi indoon ay discours lobby yi nii ay créer ay affaire di sóob ñu indi ko yële Ousmane Sonko amul benn entreprise kenn gënu ko nekk patriote kenn gënu ko bëgg réew mi kon legi entreprise moy wax entreprise yi dëmm yi deug sa nday ñoy entreprise ton Tonia mo entreprise yu Ndour yu Ndour di dem bu deug ndayam ton Tonia ko entreprise ah entreprise ngeen di wër jox leen ko bugan kay tani entreprise ngeen di wër jox leen ko bugan kay tani jox leen ko rew mi entreprise ngeen di wër jox leen ko Tyson mohammed Ndao Tyson bu mi am entreprise ana Tonia mohammed Ndao Tyson bu mi am entreprise di bëri jox leen ko réew mi kattu leen ndax am na ñoo xam ne ñu kat seen nday lañ amuñu benn amuñu benn euh, bëgg-bëgg ci ak seen ak ñu ñàpp seen nday am na ñoo xam ne seen yaay jur leen ak coono gu ñu daj bëgguñu sarab ndayam ci réew mi nit yi dañ ko war a fal parce que dafa am entreprise quoi Mike Tyson bu muy am tay Mouhamed Ndao Tyson di bëri di dóorante di dajale di créer entreprise boobu Anatole Niang jox leen ko réew mi jox leen ko Babacar Ngom Sedima entreprise ngeen di wër jox nañ ko Babacar Ngom si dina kat seen nday ñuy wax wax entreprise dina kat seen nday ba tey seen kaw jox leen ko jox leen ko tey seen ko am ñaari tool ak quatre surga lañ ko war a jox entreprise ku am juróom-ñaari ginaar ak ay pondeuse dañ ko war a jox dañ ko war a jox dëkk xam ñun dëkk bi xanaa ñun ay ay ay ay meññeefu mbay lañ ñun réew mii CCBM ki jox leen ko président jox leen CCBM président bi ah sama mbokk Saalum Saalum jox leen ko ko kuy jaay entreprise mooy sa baay jox ko ko ab ndongo daara la jox leen ko ko am na doom ak xaraam yoo xam ne boo leen gisee nga xam ne ñii seen ñii kat seen baay li lijjanti wuñ sax luñ def seen xelu xale yi si seen doom yi. wër lu ñu lekk lekk lekk ba seen doom yi dara newul seen bopp lu ñu lekk rek la ñuy wër caaram nday mais am na parents yu tooñ seen doom yi ah war a liggéey li dimbale sa doom wala di yee sa doom ci àdduna ngay wër nday loo lekk rek sa doom toog xiif ngay wër di ko jox comme poussin am na ñu yor seen jur seen doom yi def leen ay poussin wër luñ jox leen jox leen ñu ñu lekk wala ay xaar buñ kutti kuttee dem am dem am tuuti carton tooyal jox seen doom yi ñu yëy carton yi ñu dem wuti jox ñëw jox doom yi ñu mëq jox ma ñu dem wuti ràkkal jox doom yi moo tax xarit mbee rek fu nit ñi di wax seen doom yi génn parce que lan ay nopp lañ yor ak ay tànk loxo ay nit mbee mbee mbee lépp seen bàyyi ma nit yi di xool lu ñu dugal seen bopp doom yi ñoom ñuy wër nday lu ñu leen jox rek defuñu dara seen bopp doom yi bàyyi leen ci kër si ci enclos yi takk leen wër nday tey indi leen ko euh, carton bu ñu tooyal jaxase ko rakkal suba ñu indil leen euh, coton ginnaaw suba ñu indil leen nday ngooñ ginnaaw suba ñu yóbbu leen ca ñax ma doom yi génn sonnal nañu ndayam ci internet bi mbee mbee con ñaar ca tag tag non eh, grand mbee eh, am na entreprise mbee mbee am na entreprise ba mbee def na fi loo xam ne kenn def ko mbee kat sa ndey sa bàyyi sa bàyyi ñu yëpp quoi ni di yar nday seen doom yi di leen xool luñ dugal seen bopp yi moom muy wër nday lu mu la jox moo tax taxawaayu xar nga taxawee configuration xar mbaam rek nga taxawee fu ñu wax waxu nit nga wax fa nday waxu dof te doo ko sax yëg xar nga bu yëgul ni xar nga mbaam nga bu yëgul ni mbaam nga ganaar nga bu yëgul ni ganaar nga lépp nag du ñoom seen bàyyi la ak seen yar seen nday yi góorgóorlu leen ci seen doom yi de góorgóorlu leen ci seen njaboot yi yar leen seen doom yi yar leen seen njaboot yi def leen dara ci seen bopp doom yi ñuus leen seen doom yi ñuy liir ñuus leen seen doom yi ñuy jàng ñuus leen seen doom yi ñuy voyager ñuus leen seen doom yi ñuy wëri connaissance ñuus leen seen doom yi ñuy yeewu ci àdduna bañ a doon ay xar ay bëy ay mbanxux aveugle lu ñu lekk rek lañuy gis ku defar ku yor entreprise lañu wara war a fal ko na fata ah? da nga xam ñaata lay fay ñooñu est-ce que cotiser nako retraite kan nga gis mu genné fofu nek mak teki kan mo doon liggéey ak Youssou Ndour tay nek mag retraité teki kan la kan la jox leen ma ben exemple kan mo musa liggéey ak Youssou Ndour ci entreprise nek nekk ngeen xam ko mu teki ci aduna li ngeen di woyé teki kan la kan ku ku leen topp toox ku leen ku gën a yor entreprise gën a tegal ndayam ku leen topp toox amul kenn mag booy gis fii génn ba ci ñi doon ànd ak Youssou Ndour barke alxuraan ci cosaan di liggéey ak am naa ci nijaay ma wax ngeen dégg njaga caam cosaan liggéey naa ak Youssou Ndour ba bu tëj cosaan da ko yoreel xaalis Ndiaga cham bu demul tay jii bu njaboot gi boolewuloon wala feram jox ko lu muy liggéey tey ba muy di fajj soxlam ak dimbalé njabootam torox na ay morom ñu torox yi sak woon cosaan chaque jour nga gis leen ñu ñew ci kër ga di fëgg tok di ñaan di ñaan lu mu tudd di ñaan luñ jox seen njaboot yi barke alxuraan du jeex du xaj am yaakar guñu yaakar ci mom te du ko de da doon torox ci loxoy ba la ñu njaboot gi jël ko muy nijaay ñu jàpp ko xettali ko ay frère lu ñu yor yëpp jox ko ba mu yor tey entreprise am Youssou Ndour jox ko ko ay moromam yu ñu doon liggéey cosaan dañuy ñëw di fëgg ca kër ga ma ma koy gis ñu koy ñaan 1000 francs 2000 3000 yu ñu yóbbul njaboot bu joxe jox pour lu ñu lekk. ban doomu aadama moo tekki bu bu newoon ci Youssou Ndour di liggéey ci ay entreprise am entreprise yoo xam ne deux mille deux cent mille lañ jox. cent cinquante mille duñ la cotiser retraite duñ la cotiser euh, PME duñ la duñ la duñ la cotiser euh, ci ci euh, lu mu tudd boo gaañoo wala boo feebaree rek ñëpp ñu ngi leen di ñaanal Ousseyn Ndiaye chaque jour ñu ne saraxal leen ko ay nàkk chaque jour ñu ne Ousseyn Ndiaye cotiser leen ko. ma nga woon ca ginnaaw Youssou Ndour de waaye waali ee xala yaay sama doom yaay waali yaay mu nga noonu toog ci lalu hôpital tey ñu ne dee na suba ñu ne mi ngi dund ginnaaw soo cotisé leen ko lillaahi war a suuli ana Youssou Ndour sar nday entreprise waay ngeen na entreprise xam da ngeen na dof xam leen jot ba ma taxaw ba génn kenn ku taxaw Ousseyn Ndiaye ana Ousseyn Ndiaye ana mu chaque jour ñu ñu génne cotisé leen ko lu mu lekk lu mu naan bu Youssou Ndour bu bu bu Youssou Ndour doon entreprise am njëriñ Ousseyn Ndiaye dina ngeen koy cotiser ah bu ko cotiser loon sécurité sociale Ousseyn Ndiaye dina toll fii bu ko cotiser loon retraite Ousseyn Ndiaye dina toll fii chaque jour nga xam benn doomu xaram bu jógee Sénégal bu yaayam kiiwul naan la ay waaye grand changement li lu mu fi liggéey chaque jour mu encaisse ay millions Macky lu mu fi liggéey waaye ñii foog nga yee seen ndey ay yee yu metti ngeen baal ma nag tey ci saaga yi parce que ñi may yee ay nalawkat yu mun a nalaw la foog nga mbéj seen nday yi nalawu mbéj la mbéju nalaw la dafa am ñuy nalaw ci ñun te foog nga mbéj seen nday doo leen raay ñu yeewu dafa mel ni dañoo jël nday overdose tëdd doo ko nalaw wala ñu jël ay opium nii laa leen di mbéjee ak ay jaaroo def ko nii kat sa kat kat katal ngay jóg kat sa ngay jóg nga naan ma ay jon ñaa am na entreprise ak katal ngay jóg doo ma xat kat sa ndey mbéj bi ñu la def mbéj yow dama bëgg a rey mbéj ñu ñu tel kat jox leen le temps passe kat sa ndey jóg dama xat balaa ngaa yeewu coon ñaa kat sa ndey balaa ngaa yeewu Ablaye Sylla Ecotra toj sa cott ndey ngay doo ko comprendre da nga doon naloo dama xaam lan la sa bàyyi liggéey ba nga ba Ablaye Sylla Ecotra di la toroxal lan la sa ndey liggéey ci lu bon ba coon ñaa di ñepp sa ndey lan la sa toj cott nday bàjjan liggéey boo antangom sédiment de kat sa nday yow yaa kat sa nday waay kat sa toj ja lem leen jaaroo ci biir kat sa nday ay mbeju ay mbeju ba ba ñuy wàcc ñu yeewu ku yeewul laa wax am na ñu bëri ñu yeewu nag ñooñu waxuma ak ñoom doomi xaram yi nelaw kat leen sa ak ay jaaroo yi jaaroo ci biir kat kat kat sa nday jóg toog sa Youssou Ndour lan la investir lépp ci poosam la ko def bu doon entreprise yow entre ban entreprise les plus grands patriotes yoruñu entreprise bu ñu yoroon entreprise nga xam ne yor nañu entreprise nga gis ay toolu yow may ah man bu ma xoolee coon ñaar ay ree la may def quoi quatre tool la yoroon yii mu def ci yii mu def ci ay naajo yii mu def mais ban entreprise la ko jaay fan boo gisee muy bay yoo xam da nga xam ni doomi xaraam la ay bayu loxo la këcc benn benn naajo ñaari naajo yoo xam ne ñun sañu maam bu ñu koy def du kenn xamul kañ la loqati nday ñetti soble teg fuutu ko def ko ci ñaari pañe yu matul ah dem a ay quatre tamaate def ko ci <laughs> ñu ne anti damay kat sa ndeyam ñeenti damay kat sa coono ñaar damay koo ko gis ak ñetti surga ay booy ndaw yu tekkul nekk ci biir koñ ba mu jël leen ci village ba ñu ñu jàngul xamuñu dara ñu topp ko di ñett ñetti surga ngay gis ñu topp ak ñaari pombiteer ñetti naajo juróomi salade mu am ci ñaari pañe ñetti pañe bu booy yu koy liggéeyee noonu bu leen joxee ñu lekk ko mu jeex ñaari soos lañ ci def ñaari soos ñaari soos yu amul yàpp lañ ci def mu loolu ba entreprise la waaw oh oui président présidentiel bu bu bu defee noonu ñaata ñaata na ñaa wax ñaata la gañe ci ci affaire financement yi nii financement entreprise yi six cent millions la ko Macky Sall jox bu muy dem Washington DC bu muy dem Paris euh, New York bi mu joxaat ko ay million auberge la njëkk ubbi auberge di dóor gars yi maa njëkk a téegal ndayam Sénégal Sénégal ñoom xamuñu woon coon ñaa maa njëkk a wàcc mu tiit ñu ne ko moolaa xam nga ni fii doo fi amee dara moolaa ngi fi auberge la njëkk a dóoree ci wàllu ndey Sénégalais ñoo mën a nelaw ñaa ñëw teg nday ay auberge am gars di fa jaar di kattante rek di kattante mu dem yoonam ko fa ñaari booy ak ñaari xajam di door di fay policier yëg ni coon ñaa fii auberge la mu ne moom këram la. policiers yi ñëw xoolal civil comme man indi benn càggane waaw <laughs> damaa bëgg kii gars yi ne ah jëla chambre ñaata joxal cinq mille mu dugg fa woo ñeneen ñeneen ñëw ñu def noonu ba enquête ba xam ni ndekete jox na auberge la yor fii gars yi dañu fi jaar di dóorante ñu dem nag retourné ñëw laajtoon ñaa bàyyil ko ay affaire na ko auberge la kaay fay munoon na fay noppi mais mu <laughs> mu jàpp Sénégal ay dof quoi munoon na fay noppi de muy dof dof lo Yo, what's up, man? Yo, I got a gun, man, motherfucker. I got a gun, motherfucker, man. Yo, what's up? I can doing, shit, man. Got a right kind of law. Mon gun in the lie. Gun in the No, John Calala. Nigga, look on it. Nina, you're no No, no, no, no, no, no. What the fuck, y'all? Oh, no, oh. Me magina le kai kai kai damai kat sandai de. Damai kat sandai de. Ingat mi nak nak macam de. File dai taxi bi. File taxi. yoo xam ne auberge yooyu tan daañu fay taxi yi wala nga ñëw ànd ak man wala tan tot sa tot nay rek xam nga moo xam naa la yi ngay def senegal i nii dof yii nii di taxawaan nga xam ne ñoom buñu gisee kaana jàpp ne yàlla la waaye fu kaana rek ne man kaana lillaahi la leen di xel seen xel dellu man kaana lillaahi kaana lahu lahu ñu ne kaana la topp ko te kaana du yàlla yàlla waxul kaana bii man kaana lillaahi kaana lahu lahu waxul kaana bii mais fu ñu déggee kaana ne kaana lillaahi la dem topp ko mu ñëw di duur auberge ba anamu tëj na ndeyam tëj ci laa ñëw ne eh, bu leen songu Macky Sall de doomu xaraam yi xam naa ko bu baax kaw la jóg auberge la yow ñu bari jaar nañ fa katt fa càgg dem seen yoon auberge la de yoru kër de day duul de yi koy gis yëpp mu ne day porté plainte ana porté plainte ba ana porté plainte ba fàtte ngeen ni dafa newoon day porté plainte ana porté plainte ba Macky Sall la mujjee àndal da ko woowu ne ko kaay kaay kaay kaay ñu ànd nice na la walal sénégalais ne la yor nga entreprise dama lay jox tool yi ya, ngay bay ñaari tool ñet tool yoro yoro ay machine yoro dara ba legi ay fas ak ay beuy lay baye kon xam nga ni lolu du ay du entreprise du entreprise du dara sa bay sax amnako na nday Mero mu len di ve visionnaire Macky Sall liko jox 600 millions et eh, financer len ko projet yi nek fi di financer muy dajale di dugal rek tej tej na lolu ana lolu ana lolu ba ma ñafee ndeyam la daw dem kaw di commencé jooy waaye <laughs> ah, mais voilà ñu may woo waaye ah, voilà waaye bul fàtte coon suñu gaayen la non àdduna ah, àdduna mu solo non coon yooyu mënu ko ko wax ci suuf non coon yooyu neexu ko man leen katt la ndeyam man du ma nekk sénégalais di toog di seetaan coon di fooyee sénégalais yi damaa xam coon ca bu ñuy ànd nekk kaas naaka di doxaanaka taxawaalu VLC ci taxawaalu lu euh, lu lu tuddi ay tóoro ñoo doon ànd ndeyam muy xooñ jàpp ci caka ju sew si caka ju ñuul ci xasaw si si kaw la di ci mëq di sëq di mëq ñuy ànd coñaa moom moo bëgg a ñëw fii changé futti nday eh, yërëm sol ak koskara nan yoo yoo yoo eh, eh, dañuy rey sa ndey bu dee yoo nga yoo yoo yoo duñ ko fi yoo yoo dañuy rey sa ndey bu ñu fontoo coon ñoo doon ànd nday di dem di dem di di di dem tóoro di fa matiné ñoo doon ànd di dem VLC di fa matiné ngay burle boo génnee ñàkk sot sot suuti ndox ñu ñu ni ñëw grand yi sax dañuy comprendre ni ñii dañ burle ñu ànd di burle nga taxaw fii tey di ñu waaye yow bien gars yow qu'est-ce sa se passe mais qu'est-ce qu'il y foo dem ba ñëw ba yari projet ban projet de société nga yor ay nit ñi ñëw yor seen ñuy yor seen ni euh, damba mango amuñu benn projet de société ngeen foog ni Ousmane Sonko dañ ko toppee noonu yorul entreprise entreprise sociétale la yor ñun entreprise sociétale la ñu wër projet de société panafricain projet de société libérateur la ñuy wër ñuy wax nday ñaari damba mango ñetti soloma paanu buy projet de société la ñuy wax ñun waxuñu yor sa ñaari ginaar saa mais réew mi moo ñaf ndeyam anta mi moo nekkoon fii anta moo nekkoon fii di jàng taxawaalu gu metti baayam nekk ci mafia bi di jënd ay gendarme di jënd ay policier may ko ab chefu gendarme jaag jaakatu drogue mu may ko nday jaag mu jël doomam saraxe ko jaag pour mun a continuer li muy def jël na doomam saraxe ko jaag lépp pour mun a huiler yoonam baayam bu buñ koy may jaag xamul sax kuy jaag bàyyi moo nag maa la ko may mayu force la mariage forcé jëlal ma te nga muñ te nga sëy dil la dil la chef gendarme la jaakatu la day dàq ay bato day dàq ay gaal bu jàppee ñu jaay mu financé noboo ko nob nga ko on s'en fout yow jàpp ci rek jàpp ci jàppale ma te yàlla tax mariage forcé la ñu jox ko jaag jaag di def di moom mu jóge fa baayam ne ko ñëwal mu ñëw summi mariyère ba sol zip commencé na ay ñëw leen ma seede leen <laughs> waaye ay waay man lu ma def sénégalais sarat nday lii tey man lu ma def sénégalais réew mii moom mon moo bon moo tégal ndeyam man yeewu gis Anta Diagne toog <laughs> toog naa day wax nit yi daal oui mais Anta Diagne lan lay wax nit yi mais mais réew yi dafa jot koy maa ngi dem waaye man mënu ma fi toog di saa yi xoolal dama tàng maa ngi dem ñoom kat seen nday sax doy doy ñii toj seen jot nday daggate leen morceau par morceau quoi. yéen Anta Diak moo ñëw ñu may ko nday mu toog di Anta Diak toog man bu ma gisee Anta Diak toog man man man dama ñëw sax di seetaan Anta Diak mu gisee Anta Diak toog nii <laughs> gars yi wër ko muy wax. non non oh, ñu bëgg a defar Sénégal <laughs> ma ne hey waay man damaa tàppale wala dala ma jàppale ma defar nday Sénégal. waaye dana ma jàppale man ñoom Anta Diak lan la muy gën ci ndey wala ci bàyyi ñoom Anta la muy gën ndeyam man mënu ma nekk fii ñoom Anta Diak ñu nekk fii di yeewoo ko jóg tekkiwul sarak ndeyam dem Sénégal danaa bu ko doon président may ànd ak nday ci jamonoy booy ba léegi pour coon ñaar bu ko doon président Ablaye ko doon président ma doon président damay doon nday président nag bu dee réew mi comme yéen ci réew jàppataat la ñii buñ ko doonee damay damay cottu ndeyam doon jàppale leen ma à partir d'aujourd'hui ñoo leen jàppale ma ma doon président parce que ñii gënuñu ma ci nday gënuñu ci bàyyi xam naa leen bu baax a baax tekkuñ sarab ndayam bu ko doon seen président man du ma doon seen président man xanaa sama yaay baaxul man xanaa sama yaay baaxul ñoo leen jàppale ba ma doon président lillahi tey suba dinaa dem ab nday lu tëddati euh, carte ah, dinaa ab nday benn benn récépissé suba incha allah dinaa ak lëndi ma ab nday récépissé dem fële ci DGE ñu wutal ma ci parrainage ngeen jàppale ma waaye yow ñii gënuñu ma nday waay mënuma nekk ak nday ñoom con ñu taxaw fi tey di leen ay ñoom Anta Diak maa ngi ñëpp ndayam doon président damay kat la fa ndayam doon président Sénégal kenn mënu ci dara dina ko doon ndayam bu ne ñii buñ bu ne ñii bu ñu amee fulla taxaw yéen di wax dama koy doon man ñi gënu ñu ma ci nday gënu ñu ma ci ëpp ñu ma projet gënu ma bëgg réew bi fii lañ nekkoon ma nekk fii ñu ñëw foofu di wax maay wax ndayam suba ma wut nday luñ ko récépissé ngeen jàppale ma dimbale leen ma ngeen jàppale ma parce que taxaw war naa fa taxaw fuñ ma xoole fuñ sëggee ma sikki fu ñu xoolee ma xool réew maa ngi bëgg a ñaf ndaam waay xanaa man sama yaay baaxul man ñi war leen mun a tax a di waxee suba na ma jàppale leen ma ma wut lundi allah ma wut léegi naa la yónni incha allah maa ngi xool bu ma coupé léegi ku may mën a ab ku may mën a abal lu mu tuddati récépissé ma lijjanti man man mii créé sa ma. le remparts de la patrie la tudd boo leen gisee loolu maa ko moom incha allah lundi naa taxaw les remparts de la patrie boo leen ko déggee man la man mii maay les remparts de la patrie man lu coon ñaa taxaw di wax ak nit ñi nag bugg na président te ma gën ko ci nday gën ko ci bàyyi kii nga xam ne Anta Diagne ñime ko ma gën ko ci nday gën ko ci bàyyi Ablaye Sylla Ecotra ñime ko ma gën ko ci nday gën ko ci bàyyi gën ko bëgg réew mi gën ko xeexal réew mi ñoom bu ñu ko doonee man war naa ko mën a doon donc bis ni ki tey incha allah dinaa wut sama mandataire sama kii nag les remparts de la patrie la lënd ma lijjanti kenn ku ma abal parrainage naa ko lijjanti léegi bu ma bu ma coupé nii woo ko mu jàppale ma mu wut sama ma wut sama récépissé dem DGE wut fa sama parrainage wax leen def ci sama samay campagne mu mat sëkk incha allah ñu récupérer parrainage yi ma dem ci élection yi ma xool ba xam ñii ñoo ma gën nday wala ñoo ma gën baay wala daf ñu gën jàng wala lan la ba ñu ñëpp seen nday ñi ma jàkkaarloo ngeen di wax ngeen naan ay ngeen jàppale kee jàppale kee te man doole ma jàppale dinañ xam ba xam réew mi ab réewu doomi xaram la wala wu gor la ba xam ba boobaa ñoom tax taxawee man lu tax waruma taxaw incha allah suba ma lijjanti maa ngi jóg léegi dem lijjanti loolu parce que lii mi ngi bëgg a ëpp mi ngi bëgg a ñaaw nag te ñaaw na ba noppi xaar ñu dem lijjanti ñu tamit réew mi dinañ xam ba xam ñoom ñoo ko moom wala ñoom ñoo ñu ci ëpp sañ-sañ jaajëf sama gars peace Dans l'actualité ce soir, après les frappes aériennes à